sang yi yéena di njiital donga yi am ngeeni ndam tey ak ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaawam it yéena fi gën moo gën sëriñ si yéena gën nag seeni kem bég leen a bég lii pàggu sax mayewu ko ite ju rëy mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay du mayam nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ne ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a murit ku ne sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daa sarax la donga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maaka mata yëg bennub sëriñ musulaam ku koy joxug jur mbiram lu dul sëriñ bi ak ñoñam ku weddi lii mata alag sëriñ bi daala ku koy joxug jur mbiram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jombu ko ngir def na lu kenn deful te daj na it lu kenn dajul ba ñaw ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku waru fas dootoo ko jot ku war saxaarit doo ko jot fa mu ne yàlla ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na fen runge teg yàlla na nu boole nu yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy digalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg yàlla nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy digalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg woote yi wuute ne lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu kay wooteeg la muy woote woote yi wuute ne lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu kay wooteeg la muy woote kuy def lu yëngu nga jóg luñ sos nga tàbbi ca biir doo teewlu doo teeylu mbir moo dégg dem seeti ku wut barab beru sos ay mbiram yemu fa yor wër sëg ak xel mu rëy nag tàmbulee woote di netti liy xëy bu tey wax ay ngëneel yu mu yor farmeg wilaayaam ni day sel boo ko yàqaate yorug njabar mbaate ay gàllaaj yu ñàng te xor tey wirdu sulmaani yoo kay laal ci baatuuta ñii ñett koy wuy ji muy ndaw lu amul kilifa ak waaju tey bokkam ak ñay wër di muslooti mu dal di leen defi dag ñu wër ko nag di ko jay yaa man di wag doo moroomam muy jayar aoudu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima ugliqa wal xaatimi lima sabaq naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim euh, mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax a baax a baax julli ci yonante bi salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ah mel na ne am nañu mbégte lool ci jataayu mbokk jataay boo xam ne ku gis ñuy e, di wax rek danga xam ne dañoo dañoo ciral mbokk dañoo bëgg a dundal e, la nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala waxoon na ko ci kuy sàmm mbokk xaj ne moom lañuy ñuy tabaaraka wa xam ne moom la ñuy moom lañuy sàmmal di ko suuxat ngir def ko ci ñun xale yi waaye tabaarakallah eh, kàddu yi fi jiitu yëpp eh, macha allahu taala al ustaz suñu jarbaat sëriñ Mouhamed tabaarakallah ak eh, ustaz sëñ Baal wax ju am solo jooju tabaarakallah mënoon na continuer ba ci kanam ndax ñun dañuy jàng rek ndax ñu mën a am lu ñu mokkal. ñu ngi ziyaara ak nuyu bu baax a baax alxalifatul am yàlla yàggal ko fii Cheikh Mahmadul Muntaqa ak suñu sëriñ sëñ Mahmadul Mourtada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 si nee na sant mooy ci suñu wàll ndax lépp lu baax yaakaar na ne dana egsi fii comme ni ko sëñ Mouhamadul Mountakha waxee ne day gën a baax rek di gën a jag ñu nekk ci rek te góorlu te xam ne lu baax moom jombul ab jullit fu mu fu mu nekk euh, boo ko fa gisee roy ko te jàpp na ne mën naa egsi ci moom lu ci des rek mooy pas-pas bi ak itte ju kawe ji daal bu ñu ko amee lu nekk mën naa egsi ci ñun benn ga ko rek moo rek moo ngi ñu yokk di ñu ñaanal te di ñu santaat bu baax ñu gën a bennoo nee bennoo mooy tax li ñu bëgg a taxawal at mu nekk ñu koy taxawal waaye it ñu ko Cheikh Mouhamed Dikk Touré waxee léegi ci mbokk gu ànd day tax ñu ragal leen ndax am na yonent boo xam ne euh, aw nitam waxoon nañ ko walaw laa rëxtu ko la rajam naak budul woon ak sa mbooloo mii daañu la kon day mel ne mbooloo mu moom moo ñooñu kon day mel ne nekk am mbooloo mu takkatoo te ànd sa nekk benn am na solo lool waaye mbooloo lu mu bari bari bari te ànduñu jaar seen diggante dafay yomb loolu islaam yàgg na cee jàngale ba sax sàppee julli yonent bi daan ko defaral boppam daan tollale mbagg yi egg sax daan jël bant di dóor ci diggante ngir mbagg yi tolloo day wane ak bennoo rek ak mën ànd ngir mën a taxawal lépp lu ñu bëgg a taxawal ci àdduna li ci li ci des daal ay ñaan la rek suñ boroom musaluñu ci li yàq ak pakk yi te gën ñoo dëgëral ñu xam li ñu tax a indi li ñu li ñu tax a dikk ci àdduna ñu jéem koo taxawee suñu borom mosul ñun ñëpp ginnaaw loolu ñu koy ñaanal baax suñu boroom yàggal ko fi moom it lool di ñaan ñëpp ñaanal ko ko di fàttaliwaat mbokk yi suba dañuy dem xuru mbàkk bi sooba yàlla euh, képp koo xam ne bëgg na caa dugg Cheikh Amadou Fadal moo yore mbirum oto bi da nga dem ci moom mu bind la ndax ñëpp mënuñoo dem te benn oto la te day fees kon teel cee jug jublu sëñ Fallou bind la moo gën tey teel a ñëw it euh, euh, ngir ñu bañ faa bañ faa guddee kon day mel ne ñu ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp tàllal loxo yi ñaan bu noppee ñu julli ndax day mel ne waxtu wi jot na wasalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo abale woon seeni kër ñu def ko ay waañ ak ay dalukaay ak ñiy dégg suñu kàddu ci bur wi rajo yeeg ñu ngi leen koy jéggalu di jégalu bu baax a baax a baax di sant di ñaan tiyaa bu ñu ci am ñu bokk ko di nuyu tamit di gërëm suñu mbokk ustaas yi fi ñëw yëpp ak dëkkandoo yeeg xarit yeeg mbokk yi ñëpp daal képp bàyyiwuñ kenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah jaaraama gaay bamba yi bamba di sangub sang yi yéena di njiital dongay am ngeeni ndam tey a ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaawam it yéena fi gën moo gën sëriñ si yéen gën nag seeni kem bég leen a bég lii pàggu sax mayewu ko ite ju rëy mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay du mayam nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ne ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a gënub murit ku ne sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daalaki sarax la donga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maaka mata yëg bennub sëriñ musulaam ku koy joxuk jur ak mbiram lu dul sëriñ bi ak ñoñam ku wedd lii mata alak sëriñ bi daala ku koy joxuk jur ak mbiram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jombu ko ngir def na lu kenn deful te dañ na lu kenn dajul te dem na it kenn demul ba ñëw ñuy door jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku waru fas dootoo ko jot ku war saxaari doo ko jot fa mun yàlla ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na fen runge teg yàlla na nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy ndigalam teg nu ca kaw tey ëllëg yàlla na nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam fegal nu ak mooy ndigalam teg nu ca kaw te ëllëg woote yi wuute ne lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu yi wuute la muy woote kuy def lu yëngu nga jóg luñ sos nga tàbbi ca biir doo teewlu doo teeylu mbir moo dégg dem seeti ku barab beru fa sos ay mbiram yemu fa yor wërsëg ak xel mu rëy nag tàmbulee woote di netti liy xëy tey wax ay ngëneel yu mu yor formeg wilaayaam ni day sel boo ko yàqaate yorug njabar mbaate ay gàllaaj yu ñàng te xor tey wirdu sulmaani yoo kay laal ci baatuuta ñii ñett koy wuy ji muy ndaw lu amul kilifa ak waaju tey bokkam ak ñay wër di muslooti mu dal di leen defi dag ñu wër ko nag di ko jay yaa man di wag doo muy jaya